assemblée moom lu neex lu doy waar alors actualité politique bi dañ koy tàmbalee ak lu maire de Thiès di Babacar mhm. Diop moom nag euh, dafa daal di dissoudre instance yi nga xamante ne ñoo nekk ci parteem waaw FDS euh, les Guelewar moom mooy parti politique bu Babacar Diop démb la ko doon def euh, journée symbolique journée boo xamante ni le 23 juin la 23 juin di rappelé 23 juin 2011 nga xamante ni Abdoulaye Wade dafa bëggoon def benn équipe présidentielle moom nag loolu la wax ne date boobu ci la annoncé loolu donc euh, date bu euh, importante la moom mi nga xamante ne moom mooy diriger FDS Les Guelwaars di diriger tamit euh, fi nga xamante ni moom mooy meeru moom mooy meeru Thiès moom mu ne su tënkoo ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay idolam ci wàllu politique mooy Mamadou Dia Cheikh Anta Diop lu nga xamante ni loolu la ñuy def moom mooy créer benn parti politique bu bees bu nga xamante ne dina dëppoo ñooñu euh, li nga xamante ni moo nekkoon seen idéologie euh, mu ne dafay fondé wu ci euh, tas li nga xamante ni mooy instance su parti bi. Mm-hmm. mu ne reconnaître na ko c'est grave wante loolu day tax parti bi amaat li nga xamante ni moo de ay instance yu bees fi nga xamante ni moom moo foofu la jëmm Euh, ñu définiraat ko euh, ni nga xamante ni tamit noonu la parti bi tëddee ñu euh, changé ko leneen li nga xamante ni wax na ko mais naam dinañ teg parti bu bees bu bees préparé lu nga xamante ni moom moo di parti bu ñuy teg nga xamante ne nekk parti boo xam dina am représentativité fépp ci fépp ci Sénégal bu ko defee loolu mën nit yu bëre mën leen a wuusi ci seen politique bu bees nee nañ nag lu nga xamante ni dégmal nañu ko ne ne teg benn équipe boo xamante ne équipe bu dynamique euh, bu ñuy waajal dinañu jaay cent mille euh, cartes Euh, yoo xamante ne euh, pour ñi bëgg a wu ci euh, parti bi la ad ñoo xam ne ay adhésion yoo xamante ne bon ñoo xamante ñu bëgg ñëw ci biir parti bi milité ku soo mu nekk ay jeunes wala ay jigéen mag ndaw daanaka ñëpp daal ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo ci biir parti bi loolu Babacar Diop wax mu ne nag lu ci gën a am solo mm-hmm. moom mooy fexe ba ñoom fi ñu jëm moom moo di échéance prochaine mooy ay élection Euh, que ñoom ñu am ay sièges élection législative ñu am ay sièges ci biir assemblée nationale pour mën a euh, représenter lu nga xamante ne moom mooy seen parti politique bu bees waxaguñ nag ban jour la ñuy teg li nga xamante ne euh, moom moo di moom moo di parti politique bi. très bien Pape lii nag ab laaj la. Mhm. bu ñu samp dañuy laaj ndax kii di Ousmane Sonko premier ministre ndax dina def une déclaration de politique générale. bon classe politique bi daanaka question boobu moom la ñuy laaj on depuis semaine bee passée ba tey jii nii am na saa yeneen cas yoo xamante ni loolu la ñu loolu la ñu xëyee ndax Ousmane Sonko euh, dina def déclaration politique générale c'est obligatoire pour ki nga xamante ne moom mooy jiite. gouvernement. Euh, moom waxoon na ko 5 juin bay weesu ci conseil des ministre mu ne ñu ngi préparé pour def déclaration politique générale ci assemblée nationale ci semaine yi di ñëw wante boobu depuis 5 juin la woon ñu wax rek ni délé bi presque daanaka euh, dara desatu si ndaxte Ousmane ko bu ñu ko falee le 3 euh, juin. 3 mm-hmm. juillet ci lay am 3 mois te d'habitude ñi nga xamante ne ñooy premier ministre yi trois mois la ñu am pour def déclaration politique générale ay préalable dafay am balaa ñuy def déclaration politique générale euh, gis nañ ni préalable yooyu euh, que soit bind lettre ay tout loolu loolu amu ci euh, ba nga xamante ni nag ñu bëre nekk ci politique bi diante yooyu benn député di wax ne moom peut-être dafa ragal ak dernière sortie yi nga xamante ni def na ko loolu moo tax bëggul jàkkaarloo ak député yi keneen ne bu fekkee ne Ousmane Sonko def déclaration politique générale ñoom nañ jël seen ay responsabilité 4 juin bi weesu Cheikh Tidiane Dièye euh, ministre de l'assainissement waxoon na ko nee na Ousmane Sonko pare na pour def déclaration politique générale euh, wane li nga xamante ni moom mooy politique gouvernement bi fu ñu fu ñu tàmbalee ak fan la ñu ak fan la ñuy jëm opposition bi nag ñoom euh, ñu ngi xaarandi député yi nga xamante ni ñoo nekk biir assemblée nationale ñu ne tradition républicaine la que premier ministre def déclaration politique générale di rappeler rek assemblée nationale fi mu ne nii ñi nga xamante ni ñoo fa majoritaire ñoom ñooy député opposition bi boo ñu nekkoon au pouvoir de coalition Benno Bokk Yaakaar yi ya yaa y' a deux mois. 82 mhm. députés la ñu am euh, léegi nag ñu xaarandi ñu ne su fekkee ne Ousmane Sonko. Euh, d'ici trois mois et trois juillet def déclaration politique générale ñoom mën nañu saisir ñi nga xam ñoo di conseil constitutionnel. mën nañu saisir conseil constitutionnel ñu wax ci leneen. Mm-hmm. banque mondiale mu ngi soutenir le PACASEN à hauteur de 67 milliards de francs CFA. waaw 67 milliards moom mooy dernier dé euh, décaissement bu PACASEN. wax ne PACASEN mooy kuréel bu nga xamante ni benn genre programme la buy sox buy jàppale ñi nga xam ne ñoo di gox goxaari communauté Euh, collectivité territoriale yi mhm. euh, ñu tegoon ko euh, diggante atu 2019 2024 ñu ngi doon décaissé 130 milliards ci 124 communes ak ville bi yoon nag 67 milliards yi mu ngi soxal ñu yokkaat ci yeneen yeneen dëkk yeneen gox-goxaan mu nekk cent une collectivités territoriales ne en 6 ans def nañu daanaka jéego yu bëre ci transfert compétence wala sax nu ñuy def ba maire yi gën a wu ci lu nga xamante ni ñoo la yore seen gox-goxaan euh, loolu nag euh, banque mondiale moom moo ko def euh, ngir collectivité territoriale collectivité locale yi mm-hmm. ñu mën a suqaliku voilà ci lu ñuy yoree seen seen mairie am na solo Pape loolu amam solo la ñu jaajëfal bu baax a baax alors